retrouver si seen émission xam ne yéen ko tàmmal seen bopp di euh, le rendez-vous de Sénégal 7 on est aujourd'hui euh, lundi euh, premier numéro de la semaine bi nga xam ne émission bi nga xam ne moo leen di accompagner seen biir site internet préféré du lundi au jeudi di traité ak yéen ay thèmes d'actualité yoo xam ne rek laal na si wàllum économie politique sociologie wala dundu doomu aadama de manière générale comme ni ñu koy defee à chaque fois bu ñu fi nar a soulever yooyu les si ay thèmes dañ fi dalal gan boo xam ne tout l'émission dañuy ànd ak moom si ay éclairage ak ay orientation aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un habitué des lieux il s'agit de Papa Makhtar Diallo il est écrivain chroniqueur voilà à Walfadjri salaamaaleykum Papa Makhtar waaw maaleykum salaam Diop maa ngi lay nuyu euh, nga xamante ne Sénégal set bi merci beaucoup Papa Matar euh, yaa ngi xam naa ne sax euh, yaa ngi dund fu mu toll nii euh, victoire Sénégal tey nag moo nekkoon première journée d'entrée bu Sénégal moom diggante moom ak Zimbabwe si Coupe d'Afrique des Nations bi finalement si ki kii di Sadio Mané tax na ba équipe nationale bu Sénégal remporté un but à zéro ban mm-hmm. jàngat nga ciy def. waaw <laughs> commencé di leen di leen encourager parce que bon. c' est toujours difficile de commencer di commencer benn compétition parce que mhm. xam nga surtout boo nekkee favori dafay am benn benn benn benn pression boo xamante ni bu positive la mais mhm. pression la quand même bii tegu ci yow euh, nga teg si ni ñëpp di la xaar aussi dafa dafa dafa dafa jafe nga teg si aussi euh, am na ay cas Covid yoo xamante ni euh, laal na sélection bi donc tey jii bu ñu gagné bien que manière bi des na mhm. mais yaakaar naa ni comme compétition la boo xamante ni coupe la nombre de match la boo gañee nombre de match yooyu jël trophée bi mhm. damay jàpp que ni comme gañee nañ nombre gañee euh, voilà euh, dañ leen di rek pour ñu gañee le reste parce que aussi euh, l'État a mis bu ñuy wax waxu 5 milliards bu ñu ko jëlee def ko ci football bi pour mën a gañe benn trophée boo xamante ni boobu ba tey mënuñu koo gañe quand même war nañu mën a fexe ba nag li nga xamante ni investir nañ ko en retour ñu mën a am sacré bi nga xamante wala euh, sacré euh, bon sacre bi nga xamante ni boobu ba tey ñu ngi daw ci ñu ngi daw ci ginnaaw mhm. année bi daal foo war a nekk année de consécration année boo xamante ni dañuy mën a euh, jël trophée bi nga xamante ni boobu ba tey ñu ngi koy wax mais bon nañu ànd rek ànd ak ñoom comme ñoom ni ko waxee mbooloo fexe ba coupe bi ñëw ci Sénégal mais il a beaucoup de choses yoo xamante ne nga coupe bi ci Sénégal dégg nga sax président de la République euh, Macky Sall keroog ak ba mu euh, au niveau du palais présidentiel bu mu si ñoom dafa mel comme euh, Macky Sall dafa exiger ça à ce que ñu remporter li nga xam ne mooy coupe waaw non mais xam nga boo gisee euh, quand même euh, président Macky Sall avant mi def discours am boobu gis nañu. Mhm. président par intérim bu Guinée. Mhm. am boo xamante ni bu xaw a bu xaw a engagé la. Mhm. Euh, président Mali bi aussi def même chose. président par intérim bu Mali aussi def même chose. donc mën nañu ni président Macky dafa inspiré aussi ñooñu parce que c' est la première fois quand même muy waxal ni ñooñu wax leen benn langage de vérité. <laughs> donc dafa inspiré aussi ñooñu parce que gis nañu aussi tollé bi nga xamante ni discours def na ko moom aussi en tant que politicien koo xamante ni jéem a xool mhm. mu utiliser même canal bi parce que jàpp na ni bu jaaree ci loolu dina jaar ci li nga xamante moom la Sénégalais bi effectivement ba mu waxee loolu ñu ànd ak moom ak ñu ànd ak moom ñëpp dañu ne wax na dëgg tey mhm. donc loolu yaakaar naa ni euh, communication la moom ci communication la doon doxee maintenant est-ce que lépp teg nañ ko pour équipe jël yaakaar naa ne loolu Sénégalais yëpp d'accord nañ si mhm. def nañ si moyens yi jox nañ leen li war mais est-ce que tey encadrement bi wax mi ngi topp équipe nationale. parce que fédération day ñëwaat ba tey. mooy ñëwaat mm-hmm. xam nga dafa am loo xamante ni jàpp kenn du ko kenn du ko bëgg di wax di ko répéter mais dafa am yu bëri yoo xamante ni moom moo ñuy moom moo ñuy téye ci suñu football. gis nga déjà test Covid yi ñuy wax. Mm-hmm. njàpp ñëpp xam nañu ni balaa ngay dugg ci avion di ñëw Sénégal da ngay présenter test Covid bu bu bu bu négatif donc mën nañu jàpp que ni. ñu ñu liim ci ay joueurs sénégalais ba ñuy ñëw Sénégal Covid ñu parce que boo Covidee dañ lay téye fi nga xamante ni mooy club bi tant amoo test bu négatif parce que Kouyaté looloo ko téye woon. tant que présenté woo test bu négatif doo ñëw Sénégal waaye léegi ñoom nan la ñuy ñëwee Sénégal présenté test bu négatif par négligence. ñu bàyyi leen ñuy nekk en contact ak n'importe qui parce que gisoon nañ si benn agent joueur boo xamante ni sax dafa doon alerte naan nan la ñuy mën a amee ay joueurs yu blessé ñu bàyyi ñenn ñi di am accès ak autant de facilité ci hôtel yi nga xamante ni joueurs dañ si nekk. nga gis benn forme de déconcentration wala euh, en tout cas déconcentration boo xamante ne bu doy waar la. manque de professionnalisme manque de professionnalisme. aussi daf ci nekk ba tey jii mu yóbbee ñu 6 cas Covid tey jii bon nekkuñu si yenn match yoo xamante ne à enjeu mais imaginez woon tey. ñu continuer ak négligence bi ba match yi nga xamante ne match enjeu il boobaa li nga xamante ni dañ koy wax dafay nekk benn utopie parce que aussi boo bëggee am benn objectif nga da koy remporter mais foog nga def si les moyens moyens yi nag alal kese parce que 5 milliards aussi am na ay interrogation mhm. yow leer na la ni euh, lu mu tudd président fédération euh, Augustin Senghor candidat la à sa propre succession mhm. l'autre Abdoulaye Sow candidat la donc mënuñu nekk ci période campagne électorale ñoom ñuy dem def coupe d'Afrique donc ñoom dañuy obligé di def navette diggante Sénégal ak Cameroun. Mm, c'est vrai. au cest à man damay toog sax di naan mais est-ce que sénégalais yi ñu ngi rendre compte que 5 milliards bu ñu nee dañ ko def ci CAN bi defuñu ko pour joueurs yeeg seen nekk nag yooyu mais dañ ko def ci staff bi parce que staff bi am na si ñoom ñoo xamante ni dañu war a politique donc foog ñu bàyyi équipe bi di ñëw di dem ak di dellu si. te loolu tant que ñu ngi koy def di cumuler autant de fonctions. Mhm. nekk ministre nekk vice-président fédération nekk lu ne. ba noppi yow ñu jël alalu askan bi di la si jox yow ngay dem ak dellu si concentration bi wax du am te mën nañu indi sax ñoom seen déplacement indi mën nañu indi Covid jox ko jox ko joueurs mhm. donc daal je pense que ni vraiment comme am nañu ay objectifs nañu fexe ba nu ñu ko atteindre parce que bu ñu gëmloo nii ay sénégalais yi bu ñu àndee dañuy kii nañu waxante dëgg. ànd ci kaw dëgg lay doon mooy tax ba ëllëg résultat yi baax mais téeméeri nit bu ñu àndee tamit ci ay loo xamante ni du dëgg dañuy sonn seen bopp duñu dem fenn. ak critique acerbe bi ñu def nag euh, si ki nga xam ne mooy Aliou Cissé euh, est-ce justifié aussi. waaw mais xam nga football moom yaakaar naa ni damay dégg sax ñu ni way Sénégal dafa jafe parce que xaw ma ñëpp entraîneur nañu. ñëpp lii nañu ñëpp <laughs> mais non loolu loolu ay waxi caaxaan la. finalement nit ñi ku nekk dafay am opinion. <laughs> mënuñu ñu nii mënoo leen am opinion ci benn mbir boo xamante ni surtout lu la intéressé mhm. ñun ñëpp peut-être ñu ay joueurs professionnels peut-être aussi amuñu yenn affaires yi ci football mhm. mais xam nañ lu gën a ndaw ci football mhm. yow mënoo ni par exemple équipe bi ngay footballal équipe bi mi ngi nekk cent nangami nam ci classement FIFA yow ngay vingtième li nga ko rawee rek déjà waroon na tax ba match du am mais boo xoolee ci production bi nga xamante ni production de jeu boobu ba tey ba Aliou Cissé nekkee euh, ci ci ci ci ci ci euh, ci équipe bi en tant qu'entraîneur mm-hmm. mais toujours critique yooyu dañuy dellu si mm-hmm. est-ce que Sénégal am na football boo xamante ni football bu efficace la bu rafet mm-hmm. match boo xamante ni yaa ngi ko gagné ci dernière seconde ci penalty match bi ñoom sax am na benn instant ñoom ñoo gënoon dominer Sénégal te lu ci gën a doy waar Sénégal mi nga xamante ne nee nañ mooy favori dem ba ci ay nangami minute match bi lu si das bëreetul yow nga génne sa attaquant dugal militaire mel ni kuy défendre ci équipe bu ndaw bi ngay fubal loolu dafa nekk yoo xamante ne vraiment technicien yi être dinañ ci waxtaan ak yenn choix yoo xamante ne vraiment c'est des choix euh, discutables yu entraîneur bu def yooyu tamit mooy tax ba critiques yi nga xamante ni gars yi dañ koy def dafay nekk ay critiques yu justifiées nag ñu bañ a sonal aussi di ñu naan ay affaire de Aliou Cissé sénégalais la kii ivoirien la kii guinéen la xamala nag la gis nga Aliou Cissé contrat la signé ak sénégalais yi mm-hmm. ñuy jël suñu xaalis jël sa xaalis ak keneen ak kenaan xaalisam di ko fay donc li ñu koy fay prestation boobu bu nekkee gisuñu ko dañ koy critiquer du ay question de sénégalais la bu nekkoon sénégalais moom boobaa dafay def bénévole mm-hmm. mais moom dafa toog ni nangami million ngeen may fay autour de 14 millions par mois ñuy jël xaalis boobu di ko fay donc ay résultat yu probants la ñuy xaar ci moom mais buñ ñu gëmloo que ni non non non sénégalais la xaw ma nañ sénégalais bàyyi ay wax ak yu kenn xamul yooyu ay waxi caaxaan la nañu gëman nañu nekk daal ci dëgg te ànd ci dëgg. Mm-hmm. Euh, bonne chance euh, à nos xam naa ni euh, fu mu toll nii moom challenge yu leen a xaar à venir moo gën a diis si seen bopp Pa Matar si sànq yàlla na ko wax si say ndorteel ci say argumentaire par rapport ak Covid 19 mu mel ni comme variant Omicron bi moom fu mu toll nii dafa toog bu fii si Sénégal l'impression que l'État du Sénégal, pour ne pas dire euh, euh, le ministre euh, Diouf Sarr moom dafa jël rek li nga xam ne mooy Covid 19 mu nekk benn mbir boo xam ne dafa nekk si gannaawam te bu ñu xoolee carrément les résultats yi nga xam ne à chaque fois aussi ñu ngi koy joxe via le ministère de la santé li nga xam ne mooy Omicron bi ça commence vraiment à inquiéter. Mm-hmm. xam nga lu ci gën a doy waa sax parce que maa ngi romb léegi seen seen seen seen caravane bi. Mhm. Euh, dama sax ruus en fait parce que je me suis dit yaakaar naa ni am na yenn yoo xamante ni boo nekkee kilifa nekk ci benn réew nga mën a am quand tuuti gàcce di def yenn affaire mhm. mi ngi yore ngandam camion boo xamante ni euh, def ci sonorisation ay moto tricycle topp ko mhm. mais. ay nit ñu dul jeex topp leen c'est-à-dire man dama comprendre en fait yow jëwriñ bi nga xamante ne moom lañu dénk wàllum santé tey jii Sénégal ñu ngi naan waxu Euh, troisième xaw ma quatrième vague. Mhm. ñi ngi gis autant de contamination kër goo dem yaa ngi dégg nit ñi ñu ngi naan dañoo. soj les gens sont malades ah. waaw nit ñi ko tourné mën la soj bi si dëkk bi soj bi si dëkk bi soj bi si alors que peut-être variant bi nga xamante ne moom moo fi nekk la. Mhm. léegi yow loolu yëpp ñoom waxuñu si. Mhm. jéemuñu si def benn communication ministre bi amul lu muy def lu dul di rassembler de mo xaw ma di rassembler du monde. moom tey jii ministre bi li ko arrangé te mu def ko dem fële ca parcelle di